ça dama accidenté en service commandé kayit si kañ man dama la koy jox la. en service commandé en quelle année. le mardi du du 18 septembre 79. 79 accidenté. en service commandé waaw. Fort accidenté. autoroute. autoroute. waaw boobu yàgg na àndoon. man courrier maa nekkoon courrier Mbao ma xëy gendarmerie je faisais 200 kilomètres par jour dans Dakar. Man ñu jógee gendarmerie mbaw dem jëli soleil. direction Soley dama yóbbu ko gendarmerie yóbbu Soley Kaal Kader ak frontière ak gendarmerie Mbaaw. yow rek yaa àndoon kon. moo moo man ma laaj fenn bi ci ma laaj ah, ne ko motaar bi. léegi yéen def accident oto fiiru la. Ah, nit ku traversé woo ko waat. Mm-hmm. li ko aw ci compassé bi. dafa aw ci suuf ma fi ma ma ma wëññeekuwaat sama kaw. léegi nag bëgg a firé da daanu. damaa daanu cinquante mètres après j'ai resté quinze jours dans le coma. ci laa daan noyee. waaw baat bi mooy bële boobu ñu ci def. waaw 15 jours dans am yan blessure. am blessure en 82 Habib Thiam jox Daouda Sow ñu ngi def examen autorisation pour yóbbu ma France. léegi yow da nga daanu nga ni nga am ay blessures. sama sa loxo bi moo am problème. moo am problème. mais boobu bi amul benn problème. léegi bi mu defee noonu. Habib Thiam jox ko Daouda Sow Daouda Sow deful dara 31 décembre 82. ab euh, Medoune Fall ñëw le 3 avril. le 14 mars Mamadou Diop ministre de la santé. pour mu yóbbu ma France jox jox ci autorisation bi ab ab ab bi Habib Thiam joxoon Daouda Sow. Mamadou Diop deful dara. fekk genre fekk hôpital principal c'est mo yóbbu France ki ma faji jox na ma certificat de ki résumé du service depuis le 17 mars 83 ak sama radio le yo depuis boobu yow boobu ban âge nga amone 79 bi nga do def accident bi. j'étais jeune j'étais jeune. amone nga 30 ans. non bo amoon 30 ans. kon déjà déjà dese woon na lu bëri pour naa ba

moom moo commandé ma tontu na ko maa ngi attiré attention autorité yi ak commandement bi que man j'étais en service commandé na ma naa faire pour récupérer sama loxo nag ñu ko dossier bi le 25 novembre rek sama dernier constatation hôpital principal ñuy laaj un nouveau certificat médical pour annuler sama départ pour la France ba photocopier bulletin de constatation bi ak réponse médecin le médecin les docteurs dans le dossier à Marseille dans les meilleurs délais ñoom xamuñ loo ma xam ne kay ma photocopie yëpp ngi nii ma kon ñoom daal ñoo luubal dossier bi dañ ko luubal pare pour bañ yow nga dem France ci seen moyen ñoom. ci seen ci moyen état bi. waaw te Jean Collin mii wax ne Abdou Diouf nee na moom moom moom naa fay. Jean Collin weer bu mu dem def réalisme en France. jël avion bi. léegi yow euh, bi nga blessé après yaa ngi doon liggéey kon yaa ngi continué a baaw ca baar ba. ñu ne fa. nga ne ca buvette ba. waaw ca baar ba ba ma fa nekkee. au mois d' avril mm, avril mai. jabari gomis colonel bi commandement jox jabar ñu daan mi pour benn ordinaire deux cent vingt cinq jaayu ma ko aw ma weteen man ma ko jaay nga delloo ko dix mille bi jëw jëkk jaay tee ko ne ah baar maa ngi di jaayu ma beer mu ne il va voir bi mu defee noonu mu ñëw état major mais secrétaire bi ak chef secrétaire bi dañ may daf may libéré. ñooñu ne ko bàyyi ko fi yeneen remplacé colonel Balde mi ngi fi remplacé fi la ko bàyyi kenn kaa ngi fi unité 15 ci jàkka unité 15 mu ngi si. léegi ñu remplacé la boobu. léegi remplacé wu ñu ma déedéet dafa bind rapport am. ma jékki-jékki ñu ma dañ lay libéré sumi ma le 28 mai. 84 ci la ci la def visite médicale. ci lañ la libéré ci lañ ma libéré. Mhm. le premier 79 nga am accident bi 84 dañ la libéré. dama libéré. léegi depuis 84 euh, nga nga jógee fi nga nekkoon. Ben ɓe fitani yimɓe sikambaren bakkat on satma ñibbi jurbel waaw boobu Baye Cissé maa ngi moom dañoo dañoo antaan wax ma boobu foofu ma laal di ñibbi. kon 87 ba tey yaa ngi Jurbel. maa ngi Jurbel. mais bi nga nekkee Jurbel est-ce que doon nañ la fay yenn ci ay indemnité aussi. non indemnité blessure bi rek accident invalidité bi rek laay fay mais sama pension d'ancienneté. bi muy liberté dañ ne leen kii bureau bureau bureau climat def na leen. pour ñu bañ maa gaañ. dañ may dafa pension d'ancienneté

te booba pour ñu faj ma ci nangu ñëwoon naa jël en charge. yow léegi problème bi nii laajatoo faju ko c'est trop tard pour nga faju. te joxatuñ ko màggat naa am naa soixante-dix ans léegi kañ laa mooy. nañ ma fay sama vingt-trois ans de salaire. ak énorme tourisme dafa ma sam pensionnaire ma dem fay Sall na xam ne man actuellement li may togg añ ci laay tibb reer actuellement sama kër bàyyi ma fa dara.